li tawba muhammadu mooy maqdoomi xaadim borom tuuba yallaahu yaa salaam si yaa xaabili tawba muhammadu mooy maqdoomi xaadim borom tuuba ma jóg sant yàlla tey way xayru man aba muhammadu rasuulillah soppe borom tuuba muhammadul muxtaaru kenn dootu gis kemam alayhi salaamu barke borom Tuuba na buur yàlla doli xéewal taaha wa Mustafa mahalaali wala saabi waa kër borom Tuuba ma jóg way kadaa way Mustafa sayid dalwara ba mu xëy def ko géej yàlla aski sëriñ Tuuba bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu daan way rasuulillaahi sama sëriñ bu jibriilu naan ko jël nga la bàkkul sëriñ tuuba fa buur yàlla tànnee taaha muy sayyidal wara seex bamba jiitoo góor ñi doon maam borom tuuba ñu jiital ko fi duniyaa wa uxraa wa barsaqu hunaa wa xadan mooy waaja ëskey sëriñ Tuuba mu woolu ko bil koy ndàmbam ya moom donn ak mayam gannaaw abduhoo wa huwa muy jaarahoo cey borom Tuuba yonen baa ko jox wir doom minallaahi jaxsatan fa gànnaar ñu fab seen ruuya jébbal sëriñ Tuuba sërif yaag sagam ya dengoo di way naa ko ahmada sërif yaag sagam ya dengoo di way naa ko ahmada xalilan habiban li rasoolay borom Tuuba sëriñ Tuuba wa badrun muniirun xaaba fir xar bi suma laxa la Seex Saad bu waxoon maam Bamba ëskey sëriñ Tuuba insha allah sil seti sil mulki wal malakooti balay sa duma dañ di la santate xaadim sil fadilati insha allah sil seti sil mulki wal malakooti man duma dañ di la santate xaadimu sil fadilati yaa nix ma seex noo ngi lay siyaar ànd ak yéene di jafas ñaar nga boole nu ci say axyaar ñala doy ci sab xidmati tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ Tuuba ay balay sa ngi lay siyaar ci darajaay daraja sëriñ daraja sëriñ Tuuba noo ngi lay ci daraja sëriñ daraja noo ngi lay siyaat ci darajaay sa daraja ak la jaay sunu lépp yaay ngeen ji waay gën nga képp ku nuy wuti sant nan la ban la gëmee ay mbàkke sant nan la ban la xamee sant nan la ban la amee xaadimu sin fa diidati cofeel gu wér mi ngi ci xam Sëriñ Tuubaa loo gën a xam di ko gën a gëm loo gën a gëm di gën a am cofeel ak ndég ak liyati sëriñ Tuuba lu ma la way lu ma wér te lu ma yëg la te lu ma dund la lu ma xam la loo ma wan la ci wanu biir ak bëgg biti tagg la mooy def ci man mbég tagg la moo may dolli ak yëg tagg la moo may mayu njëg ci lépp lu ma bëggati sëriñ Tuuba ay bàllay sa fu ma toll yëg sa teewaay wan nga ma ni yaay ngën jëwaay wér nga rafet nga taxawaay ubbil nu baabal xayraati sëriñ Tuuba nongul yàlla nongul ko koo gërëm yàlla gërëm ko koo jox bur bee la jox nga jox ko jox nu ayaa sa nimati sant naa la gërëm naa la wóolu naa la doyloo naa la sopp naa la bëgg naa la nekkal di sunu jannati yaa jëfati yaa xaw sanaa جاجبتي يا شيخنا وسيلتي لربنا في الارض والسماوات ننورنا نودل سمت خير الخديم شيخنا احمد نفل في الهين ننورنا نودل سمت خير الخديم شيخنا احمد نفل في الهين بعد ahmadoo nu may lanu tànnoon moo nu yóbbal nga neelu taaru ci diine sunu waa ji ku seetlu ca baawoon war a sant yàlla tey def yoon danu daa kaas baraay di sotti yóbbal tey jii ku fu dàq kër ga mu miin lan ne woon ndar ñëw mbàkkele na fa jurbel buuse yi rey ndawal gi dootunu buun di lay ku gis lawam ngi tasantoo yow teraloo bàyyi faate ak may muune yi le may doy na sit bu gor ci bu farloo xeetu yóbbal dadaa defar aw yoon yile matelas ak yi some ak yile taabal gege naa yi taali lamp mbàjji leeni deri naar yaa ngi toogu yaa ngi nu dendal danu daan lal tagar gi tey biin biini balay sa mburu maag yàpp wa yaan ko saafal boole noog sa jigéen nu xuurun yi ni nanu gërëm say xubamba ahmada xaw si dogoon nag mbàkke nuy miskiini sëriñ nanu gërëm say xubamba ahmada xaw si dogoon nag mbàkke balaa nuy miskiini yaanu nandal ci koppi weeri nga feeñal balay sa sa ndox